nee na kàddu yi ngeen jox moom rekk lañ leen di delloo neena na kon mi ngi leen di delloo ab nuyoo ak ab ziyaar nee na ndax ñun ñépp benn rekk lañ ay taalibe rekk lañu nee na taalibe mooy kiy sàkku nee na li ñuy sàkku ñun taalibe yi mooy ngërëmul sëriñ Tuubaa rekk li nga xam ne neena serigne touba moy sunu yoon ci sunu borom neena motax ben rek lañu neena na seen dikkiin wii rafet na njortu ci ne bégloo na Cheikh Saalihu nee na te luy bégloo Cheikh Saalihu mooy bégloo Xaadimu rasul nee na ñun ñii ñépp de lu ci waay néew néew ay at ak lu ci waay gàtt gàtt ab dégg war ngaa xam nañu Sëriñ Tuubaa li ko ñor ci ñun mooy ak defaru mooy sunug defaru xam nañ ne liggéey bi mu doon liggéey ci sunu boroom alxuraan a ci jiitu teg ca xasaayid yi nee na kon alhamdulillah bi nga xamante ne yéen doxin woowu sëriñ bi bëgg rekk lañu jox te mooy namm yàlla nee na te jiital ci jëm ci moom ak alxuraan ak xasaayidi nee na liggéey bii ngeen ci liggéey ña nga xam ne fekke woon nañ jamonoy sëriñ bi ñu di leen tegtal nañu war a binde alxuraan ak xasaayidi ak nañ ko war a jànge nee na yaakaar na ne ku teewoon ca jamono yooya te gis seen liggéey bi dana xam ne noonu rek la ko Sëriñ Tuubaa bëgge nee na loolu mooy alxuraan ak xasida yi mu ne waaye li wax ne defarug nit ñi rek mooy ittey yoon wi moo itteeloon Sëriñ Tubaa nee na alhamdulilahi mi ngi leen di santale Sëriñ Tubaa ndax nee na melaw defaru gim ñu doon wutal nee na feeñ na ci yéen ñi nee na ña àndoon ak moom ca teewam takk ak laxasaay di jëf bëccëg di zikrullaahi guddi nee na woowu yoon de tegu ngéen ci nee na xam na ne yéen yi fi ngeen tollu ci ndaw te ndigal ñor leen nii mu leen ñore ngeen topp alxuraan ji ngeen indi ak xasaayid yi ak li ngeen ci boole ci àddiya nee na ñooñu noonu rek lañ nekke woon mooy laxasu seeni guddi ak seeni bëccëg jox ko yàlla rek nee fii ngeen toll ngeen ittewoo alxuraan itte ju toll nii foraatu àddiya yu toll nii mooy kon tekkiwu leen seen laxasaay guddeek bëccëg nee na te noonu rekk la de nee na am na ci sunu magi murid yi siiw na lool muy sëñ Moor Mbay Siise radiyallahu taala anhu mas nay dénk doomam di xaritam ne ko seex ma dénk laa mu ne ko waaw sëñ bay foo toll nee na mu ne ko foo toll del xaw a dee rek hmm. nee na xaw a dee mooy coono yi ngeen dëkke rek te ko teggi ko sëriñ ba wax ne fa kullu man baadara waqta sigari ilal huda istaraaha waqtal kibari nee na loolu de mooy mujj ko rafet rek nee na loolu booy boo ñu rafet ci njorto dal cim xel nee na ndax lii ngeen def fii ngeen toll seen itte ji ngeen jël jiital ci yàlla ak sëriñ Tuubaa nee na mu jaral leen jëf yi ngeen dëkke nee na kon booy boo ñuy seenu mujj gu rafet rek nee na waaye mujj gu rafet gi kat tekkiwut rek ne dund ba màgget man sa bopp walla say njaboot manal la waaye nee na mujj gu rafet fanu jëm ëllëg nee na loolu mooy xosnul ma aab nee na loolu bay boo ñu seenu ko mm. alhamdulilah nee na mi ngi ñaan sun borom musal ñu ci wax joo xam ne du jëmmam rekk lañ ci jublu nee kon wax ji mën naa tënk foofu rek nee na xanaa la ca des rek mooy jataay bi gën a yàgg mooy jataay bu gënoon a yàgg bu ko defee ñu dolli ko ak nammanti ko rek nee na kon gise nañu tey nañu yeewu ko tey yeewi ko tey waaw ah, te dajawaat ca yoon wa rek te mooy xel koom sax am na ci yéen lim bu takku boo xam ne jiitu nañ ci waajali Xelkom te nee na yaakaar na yéen it bu ngeen noppee ñoo ngi daje jiwaat Xelkom rek sëriñ Saalihu de bég na ci yéen ndax lim bëggoon ci nit ñi ba ne waajur yi nañ ko jox ndaw yi nee na loolu rek ngeen jëmmal nee na kon nag bismillah nee na kon nañ daje jiwaat ca daara ja rek nañ daje jiwaat ca waar nee na jërëjëf suñ Saaliwu waaw nee na nee na jërëjëf ah sëñ Sow mu ne jërëjëf <laughs> nee na yéen yéen ñëpp jër jërë ngeen jëf xanaa ñu yoonal ak ñaanalante rek bisimilah.